ñu ngi remercier l'ensemble des journalistes yi nga xam ne tey teew nañu di remercier nag sama naataango maire yi nga xam ne ñoo fi nekk di leen sant ci jiital bi ñu ma jiital ci li nga xamee ne mooy suñu yitte mooy toppatoo population mooy lijjanti problème mu population ndax boo nekkee maire mooy da nga war lijjanti mbiru population donc ñun ñi nga xam ne askan bi rek mooy suñu soxla mooy suñu yitte. daje bi nag li ko yitteel mooy dañu bëggoon déjà am benn cadre boo xam ne dinañ ci mën a waxtaan pour indi benn solidarité entre ñun maire parce que léeg-léeg saak maire bi am problème ci département bi la nekk moom kenn rek mu nekk ci di ko te keneen am pexe pour mun ko ci jàppale te di ko jàppale ñu bëgg nag maire yëpp benn problème bu nekk ci benn commune bu nekk day nekk problème bu ñëpp ci biir commune ci biir département loolu mooy li nga xam ne moo jiitu parce que loolu moom dañuy gis ne que département bi solidarité boobu lañu bëgg a créer ba nga xam ne département bi yëpp benn baat lay waxee benn baat lay jëfee benn baat lay lijjante ndax problème yi bari na te kenn ku ci nekk boo wéetee sa problème munoo régler mënoo mënoo ko régler donc ñu bëgg àndandoo di ko régler loolu moo tax ñun ñëpp ñu ànd beneen bi ci def mooy dañuy wax ne que président dafa war a ñëw ci mois de février entre le 6 et le 9 février comme lañu ko dégg comme ñëpp mu génn conseil des ministres ñu ne ñun de du ñu xaar ba mu agsi ñu doog a wax lan moo ñu métti dañu bëgg nag balaa dara xew mu waxanteeg ñun ñu wax ko yan problème la ñuy dund déjà ci biir département bi ak lan moo fi am ak lan moo fi ñàkk ndax aussi am na yu bari yoo xam ni am na fi. mais li fi ñàkk tamit bari na lool problème yi nga xam ne moom lañ am aussi yëpp ñu waxtaane ko ak moom mais loolu moo tax ñu ne dañu def mémorandum ñu détailler li nga xam ni moom la ñu soxla yëpp mais dañ ko def ci këyit commune par commune ñu ne commune bii kat soxla nañ fi ndox amul ndox commune bi soxla nañ fi tali amul tali commune bi soxla nañ fi piste amul piste ainsi commune bi soxla nañ fa telle infrastructure fii telle infrastructure ñun bëgg école bëgg nañ fa nangam loolu yëpp dañ ko tënk def ko ci benn mémorandum parce que population yi lañ lay wax seeni jàmbat il faut ñu am fenn fuñ ko teg ëllëg ñu mun ko présenter bi loolu moo waral ñu ne nañ daje def benn association boo xam ni moo ñuy permettre boo lëggee ñuy waxandoo kenn ku ci nekk mën a dégg que bari na ay projets yoo xam ni c'est yoo xam ne ni que intercommunalité rek moo la ko mën a jox ndax dañuy wax ne boo defee intercommunalité ci projet yi ci la ñu mën a ñëw am na projet yoo xam ne nag pour nga mun ko def duñ ko defar pour benn commune rek bu ñu plusieurs communes la boole benn projet te dafa bari ay projet de développement yoo xamee ni intercommunalité rek moo la ko mën a jox donc boo amulee intercommunalité projet de développement yooyu doo ci tu n'es pas naka lañ koy waxee duñ la si duñ la si boole tu n'es pas éligible donc ñun nag dañu bëgg département bi yi ngi fi nekk yëpp ñu éligible dans l'ensemble des projets d'ensemble yi nga xam ne ni moo war a nekk ci biir loolu mooy waral li nekk fii moo tax aussi ñu ngi ñu àndandoo pour defandoo nekkandoo benn say di yëgal nit ñi ne bu ñu fi nekkee ñoom ñoo ñu teg kon ñun ñoom ñooy suñu ñoom ñooy suñu priorité président nag dina fi ñëw ñu ngi koy xaar mais bëgguñu ko xaar rek bu ñu sañoon balaa mooy balaa muy ñëw dina toog waxtaan ak maire yi nga xam ne ñoo fi nekk maire yi nag laa wax waxuma politicien ndax avant maire am parce que maire boo xam ne nekk nekkatoo politicien parce que boo fi nekkee maire intérêt nit ñi moom moo jiitu intérêt nit ñi nag boo koy toppatoo doo doo xalaat politique parce que ki ànd ak yow ak ki àndul ak yow nga yemal loolu moo a tey ngeen gis fii maire yi nekk ci département bi yëpp nekk amul opposition dara ñun ñëpp fi toogandoo loolu aussi il faut ngeen xam ko dañ ko def ñoo ko def exprès defuñu loo xamee ne que pour ñu ne pour maire yi ñii la wala déedéet ñun ñëpp département moo ñu intérêt ñun ñëpp. suñu communes ñi nga xam ne moo ñu intéressé ñun ñëpp c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo nekk biir awoon ñoo ñu intéressé que mu nekk département kenn ku ci nekk sa commune population ba fa nekk ñoo la intéressé dootul parti dootul dara ñun dañoo gumb ci parti fi ñu ko ni li ñu intéressé daal mooy amul PDS amul Yewwi amul APR amul Benno amul dara ñun ñëpp ñu àndandoo ñun loolu lañu gëm dañu gëm ni ko pour ñu mën a développer fii il faut ñu àndandoo parce que bari na loo xam ne mën nañ ko tawat wala mën nañ ko jooy mais dañuy àndandoo jooyandoo ko lu ñu war a lijjanti dañuy àndandoo lijjanti ko en tout cas loolu moo war a moo war a ñun ñu daje tey defar li ñuy defar parce que nañu xalaat ne que bu ñu àndandoo li ñu wut yëpp li ci ëpp dana gën a yomb loolu daal vraiment mooy kàddu yi nga xam ne ni moom laa ci bëggoon a wax di leen remercier donc si je les points ça va euh, vous savez en tant que de député j'avais posé certains problèmes Les premiers points que j'avais posés, c'était la route de Pambal, la route de Mewan, et de suite. Je l'ai déjà chaque fois posé à l'Assemblée depuis plus de plusieurs années. la réalité qu'on est en de vivre, elle est là, la réalité. On ne se rend même pas compte que on a des communes qui n'ont pas un kilomètre de route bitumée. Un mètre, je n'ai pas dit un, un, kilomètre, un mètre de route bitumée. Un centimètre de route bitumée, ça n'existe pas dans ce département. où on a l'ensemble des industries qui sont dans ce département. Donc, quel est l'avantage pour On n'a pas, dans l'ensemble des périmètres communaux qui sont là, il y a des problèmes qui existent qu'on ne peut même pas expliquer. Vous voyez une commune qui est sur un titre foncier minier. Vous ne pouvez pas de lotissement là-dedans. Or, les la vivent là-dessus. Et vous pensez qu'on peut continuer comme ça Je ne peux pas détailler l'ensemble des problèmes qu'on a vécu. je ne veux l parler de l'ensemble des problèmes on a discuté. Parce que c'est pour cette raison a dit on va faire un mémorandum qui nous permettra de pouvoir dire au, au président voilà les vrais problèmes qu'on est de vivre dans le terroir que les populations nous ont confié. On est là pour les populations, donc on travaille, on doit travailler pour le, pour le compte des populations. Ils ont des problèmes. y a des zones où il a pas d'eau. On a affecté des Aujourd'hui, on a entendu des, des communes poser des problèmes qu'on n'avait jamais pensé que ça existait dans le département. Jamais. Ça a été posé aujourd'hui. On est même surpris nous-mêmes par rapport à ça. Donc, c'est des problèmes qu'il faut poser. Mais on les posera d'une manière élégante, d'une manière normale. Parce que c'est ça qu'on connaît. C'est-à-dire, l'État est là pour nous encadrer, pour nous aider. On est obligé, nous aussi, de poser les problèmes qui vont servir pour le compte des populations. Et ça, c'est pour cette raison-là qu'on a créé ce, ce cadre hein, pour pouvoir discuter sur l'ensemble des problèmes qui vont exister demain. On n'a pas de problème particulier. On n'est pas focalisé sur telle ou telle ou telle chose. On est focalisé sur l'ensemble des problèmes des populations. C'est pour cette raison-là qu'on est là. Maintenant, le président doit venir ici pour faire un conseil interministériel. C'est pour pouvoir dire demain, je vais, dans, on va, l'État va investir dans tel dans tel secteur, dans tel secteur. Nous, on est là pour légionner, pour lui dire que les populations, au lieu d'avoir de l'eau ici, ils, ont, ils préfèrent avoir une route, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est des types. Les communes de Mbayenne, quand on dans, dans, le sud, dans le département, vous dites que c'est pas possible. y a, y a tellement de choses qu'on ne peut même pas dire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a su que Dangote fait de la commune de, euh, dans le département de Terre. Oui, c'est des, des problèmes qu'on ne peut pas expliquer tout. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Hein? la route Ngaye-Thil Makha ainsi de suite qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on on ne se taire on est obligé de parler Ngaye coule tout le monde cest on est tous là on ne peut si si on prend on commence à citer déjà des coins on ne va pas se lever on va continuer c'est-à-dire on veut s'il vous plaît on va répéter attendez s'il vous plaît c'est-à-dire si vous posez les questions ensemble je n'entendrai même pas ce que vous allez dire maintenant je vais vous dire une chose y a des projets qui existent à à comment sappelle t à Morolan. Mais c'est des projets qui sont là pour aider les, les jeunes, aider les jeunes pour les populations. Il y a 2000 jeunes qui travaillent là-bas dans les, euh, dans les projets. On veut que ça, ces projets-là, l'ensemble des jeunes, qu'on puisse le démultiplier dans l'ensemble des communes. Et pour ça, c'est parce qu'ils l'ont fait, ils le font depuis quoi Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. il y a des résultats palpants qui sont là ça o aux populations ça sert aux jeunes les gens ils ont du boulot donc il nous faut que refaire encore le tissu économique du département le tissu économique du département n'existe pas actuellement vous allez voir on nous di que dans ce département on fait de de l l'agriculture qu'on fait tout ce qui est fruits et légumes c'est ici est-ce un seul un seul magasin de chambre froide ki existe dans cette zone on n'a pas d'unité de transformation, on de chambre on a... Mais oh, c'est des problèmes qu'il faut On ne peut pas seulement dire que le président est bien ici et tout le monde est bien en train de dire que non, on est là parce qu'on veut aider les populations, il faut qu'on pose les problèmes des populations. C'est la seule chose pour laquelle on a fait cette réunion, pour au moins que, que, que ça aide. Monsieur le Président, euh, après avoir mis ce cadre de concertation des maires, je voudrais savoir comment vous entendez travailler sur le le conseil départemental en, en fait partie. <laughs> le conseil départemental aujourd'hui Seynabou n'est pas là parce que tout simplement elle est au Bénin elle était de la réunion il a pas une personne qui est élue qui est élue qui n'est de cette réunion il a pas de déception ici a pas de déception là-bas nous on ne on ne on ne jure pas on jure elle est responsable du département elle fait partie du du cadre de concertation <laughs> ça c'est clair il a pas de vous Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si les gens pensent qu'ils peuvent nous diviser par rapport à ces tel n'est pas là ou bien tel n'est pas là, Aïmirou devait être là. Il a conseil de comment ça veut dire, c'est pour cette raison-là que Aïmirou n'est pas là. Hein? Il y a l'autre euh, Tal, je pense que c'est ça. Hein? Il a fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hein? L'ensemble des maires qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas au Sénégal ou bien ils avaient déjà prévu une mais tout le monde a donné son avis tout le monde a donné son accord. Il n'y a pas une seule, même le préfet devait être là aujourd'hui. Aujourd'hui, il a une séance pour céder, pour gérer ce cadre-là. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'intérêt des populations. On est des gens qui sont élus, on n'a pas besoin de faire tel ou tel. Ce qu'on regarde d'abord, c'est les gens qui nous ont élus. Comment est-ce qu'on peut faire pour leur rendre la pièce de la monnaie En tout cas, on vous remercie d'être On a pu beaucoup de choses à vous dire. mooy que ni li nekk na initiative boo xamante ni yàgg nañ ko wax à travers nos émissions avec le docteur Mbacar Ba ak ki nga xamante ni mooy le maire Modou Fall ci tantôt yaakaar naa ni nekkoon na benn plaidoyer est-ce que principe bi tey mooy la politique du président de la République Macky Sall est-ce que warul nekk aussi loo xamante ni ngeen koy pérenniser pour que mu koy durant mandat bi nga xamante ni ngeen fi nekk ngeen koy ci continuer waxtaan yi ci apporter ay solution par rapport ak loolu non yoo xam ne on se parle en tant que maire se parle parce que on on se rencontre dans des dans des dans des réunions y a sept mois je me suis rencontré dans une réunion avec le docteur euh, Maguette y a un mois de mois j'en ai discuté avec euh, comment ça veut dire Cheikh Sall on est en train d'en discuter tout le temps on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que la département-là se développe pour développer ce, ce département il faut que les maires puissent avoir accès à la parole. Il faut que les maires soient visibles. On ne peut pas, dans, dans, dans un département comme ça, un maire qui a un problème, se bagarre tout seul et que les autres soient, soient derrière. C'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Personne ne se battra seul. C'est terminé ça. On, actuellement, toutes les actions qu'on va on va les mener ensemble. Tous les on va les supporter Si on doit pleurer, on pleurera ensemble. Si on doit perdre, on va perdre ensemble. injustice parce que on est là pour l'intérêt des populations notre seul credo actuellement c'est d'aider les populations à ce qu'ils puissent au petit développement de là où ils sont par rapport à ce qu'ils ont il on pouvait je pouvais en parler c'est pas le cadre c'est pas le moment on vient de commencer aujourd'hui on ne va pas commencer aujourd'hui et te dire tout ce qu'on on a on vous a dit qu'on va faire un le mémorandum sera sorti et vous tous parce que ce mémorandum sera en un cahier de, de charge. En même temps, ça nous permet, avec un, une chronographie claire. Hein? Voilà, c'est notre livre de, de début du département. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on croit. On croit que tant qu'on est ensemble, on peut se bagarrer, on peut faire en sorte que le, ça avance dans, sur le plan économique au niveau du département. C'est un, c'est un département qui doit s'envoler, il faut que ça s'envole. Que ça ou pas, c'est comme ça. mais ça demande de la volonté, ça demande de la disponibilité, ça demande un travail et ça, on le je pense que tout ce qu'on fera, on le fera ensemble. Ça aussi, Dieu, remercie. On a plus. Merci.